ñuy gërëm bu baax di xalaat xale mag ndaw yama bàyyi rëbës rëbës gars yi dañ def ni bërëbu yàqukaay la maa ngi leen di wax ni bis ni ki tey bërëbu defarukaay la aussi nit mën na fa baaxe nit mën na fa jóge dem topp yàlla bëgg nit jóge fa nag topp yàlla moo tax ñun ñu yaakaar ni na fa xale yi nekke na fa mag ña nekke war nañ ko soppi war nañ ko changer ba ku fa dugg ak sa dignité doo ko fa génne ku fa génn ak ku fa dugg ak sa xol doo sa xel doo fa fa génne ku fa dugg ak wér-gu-yaram doo ko fa génne donc améliorer condition ya fa nit ñi nekke loolu mébét la yéene la bëgg-bëgg la may wax waa Rebeuss yi may dégg yëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant ñaari at ak genn wàll dund nañ ko ci kaf ci jàmm ci ree ci sant yàlla yàlla na ngeen génn yent bi di gërëm di sant tout le personnel de l'administration pénitentiaire ay jigéen lañu ay xale lañu ay mag lañu loo xam ne xam nañu lu tax ñuy nekk foofu naam seen liggéey yi metti na naam seen taxawaay metti na mais ñu ngi koy def ak dignité ak ngor ñu xam mébét yaakaar di engagé état bi bis bu ko mënoon bis bu ñëwé ñun ñu def ko inshallah statut statut bi nga xamné mom la agence service pénitentiaire yi di xaar lu urgent la parce que ku nekk nak ca la nga nekk da ngay ñaan yalla mu yokk mais sen statut boobu yakamti nañ ko xaar nañ ko bëgg nañ ko yàlla na leen ko état bi defal ci nu mu gën